فلا تقسوا إن عبد الله بالفضلا إن الكواكب يخفيها سنمار للمصطفى خير خلق الله منزلة لو جيانه وكل الوراء رحم الوراء نيل فللمسرئين لو wal fadlu inda rasulillahi xaraaru ku sopp sëriñ Seex Isaa Jeen defal ni ñu màggal sunu jàmbaar ja kita yaday la aasayun tulaasimu woo bazlun wa baasun liman laanu wa man jaarum loo minal ilmi loo minal ilmi ma lam yawi badarun لقد ذا في البرايا وزبار إن رسول إن رسول لسيف يسرار بها معند من شيوخ الله بتار لكل من جملة الخيار مرتبة لكنما أحمد المختار مختار صلى عليه لسي صلى عليه لسي salla alayhi ku sopp suñu sëriñ daam ni ñu màggal Seex Isaa jenn jàmbaar ja salla alayhi fil jaari xaddamo musalliman tib xama yan waa wayaxtaarum wala biti saasin xat awaaw sarafan li annahu lil wara sadaatu waxyaarum asal ma faaqira Isaa jenn soo karamin wa faasa bil qurbi wa ridwaani bil xidmi asal mafaaqir isa jenn soo karamin wa faasa bil qurbi wa ridwaani bil xidmi hibbul xadimi wa misbaahu tariqati bi istanarat liman yamsi bila sulamin padanaadi bun ari ماخذ يقظ بر كريم جواد مخجل الدم فتنا ديب أريب ماخذ يقظ بر كريم جواد مخجل الدم رب الجفان التي دابا خرم تلات بالعرس والعام والأخباز والدسم وبمتائم أنا ذاك المفتقر بسفل الضيف من عربي ومن عجمي أما دا يا أولاد سارا آدين بالنبق بالفم أو بالخط بالخلم وريث شيخ على رقم العسود فكم أحتار ما فاخ من باد ومقتدم مالي لمصر ولا فيما أوى عرب لكن بتجاري أنا بدر تميمي عيسى ابن مريم عيسى جن قد سدت أنواره فاتنا بالفضل كلهم ونال ما نال من أزار تربية حتى غدا الإسلام سن بلا حسن ولا ألم ونعلم نعلم من أسرار تربية حتى خدا بين أهل سبقك العالمين أتى مهيا مولانا وساد به الإسلام سن بلا حسن ولا ألم باقي أستاذنا مفدال أحمد من هو الخديم بما أحيا والخدم عليه ridwaanu rabbi daayiman mm. abadan mm. Mm. ma jaada bi soori wal maamool sol karami alayhi salli bi taslimi alayhi loo wal aali wa saabi wal maamool wal karam jogan nan di santaat la ngir yaa fi gën te ñun mbàkke yaa baax ci ñun sant nan dama bëgg yéen ñëpp ngeen wax daam ku wax daam ren yàlla na nga wax daaw déwén jogaat nan di santaat la ngir yaa fi gën te ñun mbàkke yaa baax ci ñun sant nan jogaat nan di santaat la ngir yaa fi gën te ñun mbàkke yaa baax ci ñun sant nan rawee nañ ci yow mbàkke yaa tax ñu raw te yaa may ñu taw feex de ñun sant nan njëriñ jàmm yaa def ko yaa say xanaa njëriñ yaa ko yor ñun sant nan fajugu aaja yaa yor ko yaa say xanaa te xafa sunuy aajo ñun sant nan fajugu aaja yaa yor ko yaa say xanaa te yaay faj sunuy aajo ñun sant nan te xeg jaam ñi yaa yor ko xanaa te xee ci yow Mbàkke ñun sant nan borom màggalug Tuuba santay li war ci yow faw Mbàkke te sant nan ruuy jaami yaa yor ko yaa say xanaa yërëm jaami yaa def ko yaa say xanaa borom màgg gaag yéeme gaag sell gaag borom man ga ak mbaaxam ga yem naa ko ciy borom muñ mu neex ma te kàddoom ga neex te kaalaam gojor lool de laa di way borom muñ mu neex ma te kàddoom ga neex te kaalaam gojor lool de laa di way borom kaala googe waral kaala yi kutal kaala wooti na koy sant tey borom dalli karbet ya moo tax ba nuy maraaki su tey di sant ak di way borom dalli karbet ya moo tax ba nuy maraaki su tey di sant ak di way borom fidwa ak ngorga ak jom ja borom jom jommal na ñii ak ñëwey borom col gu weex gee waral rafle wun dogon moom dañuy rafle bay ngembu tey borom col gu weex gee waral rafle wun dogon moom dañuy rafle bay ngembu tey ku sañse war ci otoom jóg di dem na yëg lépp mooma xewal yaa ngi tey te moom fas la daawar te ñun ñoo ngi nii oto ki wiwi yo war di wéy lu delloo di santaat la yaa xanaa amoo maas moroomante ñi ñëwey ñu delloo di santaat la yaa xanaa amoo maas moroomante ñi ñëwey alhamdulillahi da tey man ma jóg te daal di sadd way te sa gisee xiw bi ma ngoy kookaa di sëñ Balla Faali Jëng ku sopp sëñ Balla Faali Jëng dafa li ñu màggal suñu jàmbaar ja jàmbaar la alhamdulillahi tey man ma jóg te daal di sadd way te tagg seexu bi ma ngoy kooka di sëñ Balla Faali Jeng sëñ Balla Faali Jeng sëñ Balla Faali Jeng sëñ mi ko sëpp sëñ Balla Faali Jeng di ko taxaw ci ko ñu màggal jàmbaari sëriñ Bamba jooje sëñ Balla Faali Jeng sëñ Balla Faali Jeng sëñ biir bi féete na ca kaw ay yow yaa faw kaw sëñ Balla yow ku la am fa wu mu raw doo cuune sëñ Balla Faali Jeng sëñ Balla Faali Jeng sëñ Balla kat la feese del ku sëgg ñëw mu fab si gil sëñ Balla doo daqe doo daqe ajab yaakaar du tas sëñ Balla Faali Jeng sëñ Balla Faali Jeng sëñ Balla Faali Jeng sëñ Balla kat la feese del ku sëgg ñëw mu si gil ah. siñ balla du daqe du bodde ñun suñ yaakaar du tas ci siñ balla faali jëng siñ balla faali ah. faali jëng ah. bu jant fenkee ba selaw ñëpp a ngi daw jëm ci nelaw moom muy dayaale moo fi raw penga nga ni li siñ balla faali jëng siñ balla faali jëng yërmaande ka lefe sa dell ku sëgg ñëw mu si gil doo bodde doo daqe ajal yaakaar du tas siñ balla faali jëng Cheikh Issa borom lagan Cheikh borom lagan ku sopp maam naar jenn defu lu ñu màggal Cheikh Issa jenn Cheikh Issa jenn Cheikh Issa ku weddi demal lagan ah. ku weddi demal lagan ku weddi demal lagan bàyyi si di jéen nag siñ Mbàkke jéen na mooy mbër a manu gan yaaram la wuute naag sëgën Cheikh Bamba ko ñaaj ci xarnu bi Cheikh Bamba ni woon Cheikh Issa Diène ah. Cheikh Bamba ni woon Cheikh Issa Diène ah. Cheikh Bamba ni woon Cheikh Issa Diène ah. ku sopp sëriñu sëriñ daam su rëñ ku sëpp sëriñ biñ Musaa naan ku sëpp sëriñam sëriñ Daaru Ngañ Tandini ku sëpp sëriñam sëriñ Yaali Sey ba mbaani war seexi saa jenn demal la gan dama ñëw ma fekk la ak la fa gën yaa ma gënal ñafane yàlla ñëpp am jàmm yàlla ñëpp am jàmm ñu ngi tub bu baax ñu ngi tub bu baax ku dégg ni ñuy waxe xam ni ñun Sëñ Isaa lañ gëm teyit moom la ñuy gëm ba keroog ñuy faatu ñu ngi tubaat bu baax di siyaare kilifa yëpp di ñaan ko fi teew na sa lépp baax jërëjëf sëñ daam ka jàngkatu xasida waaw joxal ko sëñ daam euh, day mel ni waxtu julli jot na xam naa ni dañuy waaj ñu may kilifa yi rek ñu ñu taxaw ana sëñ Abdou Salaam Sourang wala sëñ Naar yaakaar naa yaa ngi foofu waaw kon xam naa dañoo may kilifa yi boo ko defee euh, ñu waaj daal jubbantiku rek jublu xibla sëñ Modou Faye Kebs FM <laughs> jërëjëf waa Touba TV itam ñi ngi jàll direct niki noonu itam waa Tawfekh yaakaar naa ñoo nekk noonu xawma ngaabu ñu dimbali ma ci listub média yi fi nekk seen chaîne YouTube Tawfekh Production ngeen bës cloche bi bokk ci programme bi national international